mbokk yi yéen ñu yee njëglu coow li Sénégal tey nag dañuy ñëw ci wàll soo bis bi mooy wàllu misik bi lu ko waral mooy dëmmante bi bari na tamante dëmm bi waaye dégg neen ba tey tamit dañuy warante gi bari na musique nag bu ñu ko déggee xam nga musique du diina mbirum àdduna la rek man da ngay dégg ñu naan la Omoro daa trahir Sidi Diop dam ci Wally Seck déedéet man d'accorduma d'accorduma de xeyna nit ku nek ak ni nga gisee parce que walu adina la rek te adina buñ ko waxe moy teranga fepp fo meuna gis teranga fofu ngay dem wax deug yalla yow mu kay critiquer setal fi nga nek ndax bo gisone fenen sa teranga do fa dem man sa dama dem ba japp ne sax mbir bo ci nekke to warulo mbir mom do ci jeriñu waw ñi nan la da nga trahir da nga war bo fa togon ba febar amulo lo fajo dañ lay setan kep nak duñ la faj bo de ñu naan la yalla mako yalla yeeram te jéggol ko kon yow mu ci nekk bo gisé keneen mu ëppal la ñëriñ nga gën fay gis sa bop bay ka fa kële dem ci kële nga nekkal waye lool moy aduna kat gis nga adina fi amul lu fi nekkul intérêt kat lepp intérêt la waaw ndax nit ku fepp fo nekk nga gis fenen fu ko ëpp njëriñ wala solo xam nga Sénégal 1 2 3 mu ne lan mooy trahir lan moy trahir ñun sax mo trahir len xamul mo wor len xamul man dedet loolu xam nga mësuloo deg concert buñ tëgg ba tusubaar jot ñu ne nenk dag dam julli ci mësul am wala nit di woy ba ci yag ñu ne julli sangam jot na neen ko dagg julli ci amul fenn kon kay loolu du dina taw wax deug yalla lo xam ne nekkul diina addina la ta adina bi nak wax deug yalla no mën def ba jekke ba ku rek ngay wër way way way way bo gisee ko xamne man nga fa awé dal di jek dal di jekkandiku loy xaar demal nga satisfaire sa bop satisfaire njabot njaboot na senegal nak nag daf ci am ño xamne wax rek moy sen liguey wax rek wax rek aduna non la fii day jek tene fi fi jek jekk dem fele yow comme lo ci wal diina ci wal so bis nga yengatu da ngay dem fu gën fu gën ci yow nen waxante deug ku nek xamne na omoro bu wali sek mo gëna ris riis upp beus mo gëna a jekk omoro bu sidi jom nak neen waxante deug dañ waxante deug ku nekk nak mi man mi yaw mi yaw mi xey suba di liggey wax deug yalla fi nga nekk fo gisone fu ko gëna a jekk na nga dem fa kat tan buñ waxante deug wali sek rek mo fay teug moy dem international mo gëna tabe ci gaay ah bokku ta gaay de eh omoro nekkal fofude, de saxal fofu de tanki ya, bo mané wari bi nga nek sa bo gison fenn fu ko gëna jek sa bu la nexé nga dem ndax liggéey la rek teranga ngay ut yow manam diina bolu la kenn teranga rek ngay ut foko fa mané amé damal foko fa amulé bay ko fa nak yak bu forox ndax sa njabar bu febaré kenn du la ci dimbalé ya ci dimbalé sa bop say wajur nako nonu kon walu so bis amul trahison amul wor mom dal fo mëne gis sa intérêt dem fa jeexna lo rek la waaw kay. Abonnez-vous Thiowli Sénégal abonnel ci Thiowli Sénégal. Abonnez-vous Thiowli Sénégal. Abonnez-vous Thiowli Sénégal. Abonnez-vous Thiowli Sénégal. ndax man li ma soxla ci xibaar yu wér te woo Thiowli Sénégal.